bu baax a baax ñoom grand bi maa ngi lay kontaane mais bien payé ah grand bien sapé vraiment élégance totale maa ngi koy gis ci yow maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax di bëggee sama gars yi waaye tey damaa biddanti maa ngi jégalu damaa wàcc di tubaab tubaab lu yow naan damay sies la kenn loolu du man ma <laughs> tarxiis ay tey kontaan nañu ci yéen bu baax a baax a baax eh, di leen wax ni seetu Sénégal ñëwaat na ci biir showroom bi ah eh, lépp rek lu waay di jaay bëgg mu jar wala mu koy wane bëgg mu feeñ fii ngay ñëw ci xale yi nga xam tabarkàlla eh, kenn du ci ñoom ñoom rek tarkàlla boo leen wanee Euh, ci mbedd mi ñu def ay yëf waxuma laa ñu teg ay produits di jaay ku ngeen jaay mu jaxal ngeen jaay yëfam jaxal yal leen yàlla defal leen jàmm ay cee ànd ceeg partenaire yu mel ni Jawda mi nga xam ne indi na meew indi jus waaye euh, mun naa buuti moom itamit euh, nga xam ne indi na ay lee yoo xam ni bu yaram yi setee wala lépp rafet moom moo tax salaamaaleykum kan laay njëkk kii Samira wala ci nañ jëm ci sax salaamaaleykum salaam maaleykum salaam Aba euh, Awa Gaye maa ngi lay nuyu di nuyu euh, suñu téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun euh, du lundi au mercredi di seetaan li nga xamante ni mooy seetu Sénégal Aba ni mu ko waxee rek ambiance no stress kafoore waaye ci jaay bi ci la bokk da ngeen di indi seen produit teg ko si table bi ñu daal leen koy jaayal ba mu neex donc nuyu naa aussi Didi mi nga xamante ni mi ngi jógee Nice waaye loolu après dama koy jël ci suuf incha allah Nice cas bi foog mu. kii kaay kaay ma xool si om kaay ma xool si om kaay ma xool si om man lu xew naa xam ci om om amul amul liggéey bi ñu ah. te foo yemoon. maa ngi woon ci didi bi nga xamante ni ndeysaan bëgg naa xam kaa bi waaye damay bàyyi ba pare seetu bi incha allah mu daal di ma koy nettali donc mi ngi noonu comme ni ma ko waxee sànq seetu bi de retour donc di leen jaayee seen produit waaye di waxtaanale di kaf di ree ma gersu gis jongoma 2 giga fële aca mi ngi noonu seetu Sénégal donc showroom bi nga xam euh, ma ko léegi nii. waaw xale bi ma mu ne pourquoi. <laughs> amul <laughs> ah, na ma pourquoi man tout le temps dama naan sama koy snap dama naan abaa. nga beau Abba da nga cute mu ne wax ko Abba ban parfum ko ah xeeñ wax ko ko wax ko ko aayul wax ko ko nga wax mi ngi ma dinaa la ko wax. nga laaj <laughs> hmm. te te bii laa leen mën a wan bi man xam nga parfum euh, dama ci utiliser yu bari.

lii sama bii lii mun a bootee Jawda sama <laughs> fii ngi nii <laughs> right Aba uh, mooy uh, nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan uh, every Wednesday ñuy xaar Awa Gaye ànd ak Aba and the team ñu ñëw indi leen seetu Sénégal waaye Aba comme tey mooy the first of December may ñaanal jàmm rek àddina bi yëpp waaye di ñaanal jàmm bu baax a baax a baax Gambia because on Saturday the fourth Euh, mooy le 4 décembre euh, dañuy def seen élection euh, ñu daal di tànn président <laughs> kooku unfortunately he could not make it hmm, waaye di wax rek Gambien si ne ku ñu munti votal ku ñu munti tànn nañu make sure ne ñu tànn koo xamante ne suñu ay sit sitaat dinañ hmm. gis seen bopp si loolu because it's very important président si dañuy ñëw dañuy dem waaye ñun we're here to stay hmm, so li may urge rek mooy Gambien si fàttaliku ne Uh, Gambia is our own we own it and uh, it's very important ñu def yëpp ci jàmm ak salaam I think uh, loolu nekk na loo xamante ne man comme doomi Gambia uh, is I have the right to say it and I'm saying uh, présidence yéen tamit euh, fexe leen everything possible ñu am jàmm that is everything euh, di ñaanal euh, Sénégal bu baax a baax a baax a aba di wish everybody ñoo xamante ne on the first of December mooy seen birthday mm-hmm, di leen mm-hmm. wish a very very happy birthday exactly mm-hmm. happy birthday in advance to Muna samax bi maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram aba mi ngi noonu maag jaw daana la ànd tey xam naa si kanam tuuti rek wéttali ko moom itamit mu wéttal la ñu doxal ci li nga xam ne moom mooy seetu Sénégal yaakaar naa ni Baye Mass euh, way na way wu am solo damay tëb bi ci kaw parce que dañ ko tànn bëgg mooy laal yëfi jàmbur ñu naan moo laal yëfi jàmbur waaw ku laal yëfi jàmbur sàcc nga boo fi laalee yëfi jàmbur dañ naan laal nga yëfi jàmbur te vraiment bu dee yëfi jàmbur la euh, euh, yoon mën na laa teg ay daan donc ba Mass bi moom nga may préparel laata ñuy ñëw ubbi téléphone yi 88 628 72 86 Mayte képp ku am application Orange Money xanaa xanaa xamoo li tax seet

Gambien si ne leen li nga xamante ni mooy seetu Sénégal nañu ñëw because xam naa right now ñëpp élection si la tal waaye à part de on the fifth mooy on Sunday di bëgg naa Gambien si commencé di ñëw si seetu senegal te li ñuy fay du cher Aba mi ngi fi pour represent leen Samira ak sama yeneen naataango so guys you should come on board it's not expensive woo nga waag ay waay ay waa Gàmbi ba pare wool waa Mali. ani soxma sama gars yi ñëw leen fii ci seetu bi ngeen daal di teg maanaam karité yéenay xool euh, nu tudd waaye affaire boobu noonu weex boobu malien yi bëgg maafe lu ngeen indi fii ci. karité karité sedd bi kew waaw kew kew petit cola konkorom yéen moom kew yéen moom guro. guro ñooy borom mu yéen karité ngeen am ci lu nooy ak lu nooyal karité. Ah, karité nag karité da eh, ngay lu nooy tey nooyal karité rek ngeen ci am <laughs> bu ngeen woowee seen waa dëkk yi ba nag dangeen may may eh, mawoo ku xam saraxule pire xam origine am. Uh-huh. France la eh, suñu maam bi njëkk France la ju France la juddoo fa la jóge donc maa ngi woo waa France yëpp yëpp ñu suñu origine France la. Euh, suñu nationalité française la donc sant yàlla bu kenn soxore kenn waaw ah, bi ngeen fi waxee seen nationalité iñaane ma neen donc bu ma kenn iñaane donc ma <laughs> amari kenn laaju la ko léegi bu ci nekk ak lëf yi indi waaye moom may te mais eh. lu émission bi neex neex neex te toogoo tee album bi xol bi wala nga toog tee poster bi ne yéen ñi bëgg album bi dem leen ci seen application Orange Money ne carré bi nekk ca wet gi ngeen laal ko bu ngeen laalee carré bi day ñëw ci écran bi fees ci dell nga scanné li nga xam ne mooy QR code bi mën la jaay album bi nga xam ni mooy album Youssou Ndour mbalax douze titres eh, tabarkalla ñu ngi waajal bu baax a baax ay soirée Youssou Ndour ak ay événement om ay sorties om ñu ngi koy laaj euh, demal ci ki nga xam ni mooy Baye balaa benn auditeur wala benn téléspectateur di dugg ci li nga xam ne mooy seetu Sénégal ayte Apulaay réalisateur bu mag bi am naa ne am naa ay témoin ñoo xam ne fekk nañ lépp yàlla na seen jàmm yàgg aso nuyu ma Cheikh Bari nuyu ma gars yëpp ay seen yëpp maa ngi leen bu baax a baax a baax yaakaar naa ni Baye Mass euh, li mu way foor na et ma gis ko muy way ku ne di yëngal sa bopp yéen mel ni ay dénkaane ngeen loolu dañ leen dénkaane non man sama xel dafa dem ci Didi mi ñibbi si barke di niis ma ni comme dénkaane la bàyyi ma may ko way dafa bàyyi woon yaay bàyyi bàyyi dem niis dem waaw ah, ak ñun yàlla baax na moom laa mayoon way bi en tout cas. ayca Samira naa am nañu invité. waaw émission bi euh, askan wi commencé nañ ko sollicité bu baax a baax a baax ci invitation. Mhm. yaakaar naa ni am nañ tey ñaari invité bu ñu jëlee invité bi pare am nañ beneen invité. Mhm. donc dañu waxtaan ak moom ma bàyyi la nga présenté ko bu ko defee yàgg Awa Gaye ngeen sotoo ko. man ma ruube jeex na ayca Aba ki nga xamante ni mooy chef euh, Tamsir Ndir de organisation li nga xamante ni mooy street food Sénégal dañ lay nuyu rek daal la bàyyi nga nuyu ak Sénégalais yi. salaamaaleykum waa Dakaru maa bu baax leen jaajëfal di leen euh, gërëm bu baax seen émission bi mais seetaan souvent itam kontaan naa ñëw nag tey pour mun a waxtaan ci Sénégal street food muy uh-huh. deuxième édition bi mais Cheikh xam naa ni indi nga événement événement bu rëy nga fi indi mais uh-huh. boo paree euh, man dinaa la laaj li nga xam ni man question la bu ma dencoon uh-huh. doon xaar chef bu ñëw toog euh, ci sama kanam wala sama plateau ma laaj ko parce que chef yi ci cuisine wala ay chef yi ci dañu mel ni chef ci armée ah. dañ leen respect grave ah. man def naa togg jaar naa dañ maa dàq waaw ndax man ni ñu doon def chef bi man comprendre ma woon mais dama leen bàyyi ngeen dugg ci programme bi ba mu wax programme ba noppi ñu dugg ci laaj yi nga xam ne man moom laa ko bëgg a laaj. waaw man dama koy dalal again once euh, street food Sénégal. mooy lekku mbedd rek bu ñu am senegal tàng Sénégal. tàngana dibi awsa forox caaya pension loolu yëpp ñuy jaay fii ci biti xam nga soo xoolee Sénégal chaque jour des millions de Sénégalais ci biti la ñuy lekk. fa la ñuy ndékki fa la añ fa la fu ñuy reer fu ñuy tasee di waxtaan di wax ci waxu dëkk bi wala benn nouvelle walla situation bi am vraiment benn regroupement social la en général sooy nekk ci mbedd bi di lekk donc loolu laa bëggoon tamit nit yi teg seen xel parce que c'est des gens qu'on voit et qu'on ne voit pas ñu ngi fii depuis toujours man depuis xale damay dem lekk ci lekk lekk depuis xale chaque jour Euh, wala dans la semaine am na samay place su may dem lekk foofu donc bu may toog di xalaat loolu ak sama expérience euh, sama métier ça fait 30 ans ma nekk chef cuisinier ah, et daf may bëgg daf may motiver tamit te pare daf may euh, inspirer sama liggéey au quotidien parce que damay liggéey lu bari suñu produit locaux yi ñu am fii ci Sénégal mm. donc je me suis dit pourquoi ne pas aussi ñii itam on les met en avant ñu wane leen mm-hmm. ñu gën leen jox cër loolu woon vraiment dooy leen seen cër ba pare bésu événement bi même tarif yi ñuy def comme ci biti exactement c'est les mêmes prix du dara du changé lu jar cent francs cent francs nga koy deux cent trois cent et ah, street food waaw parce que day am li nga xamante ni mooy ay tarif parce que bi euh, Khadija tegee fii sànq affaire bi projet bi. maa ngi naan ko ndax street food Sénégal lan lan mooy seen objectif dañuy teg ay lekk ci mbedd bi di séddale wala. voilà non non dañuy ñëw installé wu ci benn espace nit yi ñëw jënd ba pare tamit dafa mhm. euh, a dem ci mën a ñëwaat ñëwaat découvrir donc gars yi lu ma leen def dama jox ay tablier ay t-shirt dafa leen ay espace yoo xamante ne yu set mm. suñu paree ñoom dañ ko mën a yóbbu yóbbu ko seen place ba man ci ginnaaw commencé naa liggéey boobu dama fay jaar ci ñoom di xool di leen jox ay conseils mën leen tuuti ci organisation bi mm-hmm. après événement bi dama fay delluwaat tamit xool au niveau de l'hygiène bu ci tollu et tout parce que loolu tamit daf ci am benn importance boo xamante ne lekku mbedd lekku mbedd ok la cuisine dañu doon gis euh, parfois ku commencé woon na am yenn saa yi ñu jël benn oto daal di koy pousse ba fenn teg ko fa kooku ubbi di jaay mu dimbali woon askan wi parce que am na ay am na ay place yu bari yoo xam ne ñu ngi ci biir town bi da ngay dem ba guddi nga xiif ah, boo wàccee bëgg lekk doo am loo lekk yéen est-ce que yéen ngi ci projet yu mel noonu euh, di di teg ay xaw ma lan ay food nañ koy woowee noonu ay food truck waaw waaw waaw waaw food ci ci ci ci street bi bokk na ci Euh, fii ci Sénégal mii ñu ngi ci am yu ci bare mu ngi gën a ñëw nit ñi ñu ngi koy def bu baax soo soo demee bitim réew rek ci suuf yu bare léegi sax di ci def ay événement hmm. fu toog rek li ñuy woo woote teg jaay def benn place bu mag jënd ak yooyu voilà mu ñu ko jëndee dina am fii ñu dugal bantu bale si waaye dibi aw sabi dibi aw sabi si si dina fa ne dina fa ne oh bëgg yàpp ak bantu bale bi ndawal ndawal laa bëgg te Ibrahima dana wax ndawal ay ay ay ay kon nañu wax ndawal kon nee nga ne maam Cheikh Rafal nee nañu wax ndawal kay nañu wax ndawal rek ay ay

bañ dugub yi dem ci pastel yi ah, ci akara yi ci pinton yi mm. waaw sandwich yëpp mm. après dem ci dibi samp bi mm. dem ci forox caaya bi dem ci dibi awsa yi voilà yooyu yëpp ba kañ lay jeex day commencé kañ ba kañ. ba ay 23h minuit. defee lii nii yëpp ba pare. Um, lan mooy the next step behind this whole organisation. déjà événement bi dama koy def une fois par année. mais après liggéey bi mu ci def après mooy euh, déjà côté hygiène bi dem seet xool ñoom fu ñu ci toll ba pare ba ci région itam. su ma xoolee Forotiaye bi bastion bi fii de Forotiaye au Sénégal Kaolack la nekk donc prochain événement bi bëgg naa ko def Kaolack. Mhm. bëgg naa dem Kaolack xool foofu au niveau du Forotiaye organiser beneen événement foofu toujours tamit dem ci liggéeyu hygiène bi itam. parce que finalité projet bi d'ici quelques années mooy def un grand festival. Mhm. africain de street food. Mhm. mën a dajalee ay yeneen dëkk ñu mën a ñëw fii ci Sénégal ñu mën a teg festival boobu boobu su demee nañ ko def soit ci 3 4 jours wala xamante ni nit ñëw. découvrir ñoo xool ci yeneen dëkk yi ni ñuy lekk itam. mais di ñëw toog di lekk ñëw toog di naan rek moo fa am ah, amul lenn loo xam. si dina am tuuti musée. dina am euh, kii euh, kii di tudd Rif. d'islam la dina ñëw euh, déclamer. am tamit benn groupe de jigéen yu ñëw. ay DJ nañ ñëw jouer itam parce que man itam DJ la. ok donc côté musique bi itam dina dina fa dina fa tegu. dina am tamit benn expo photo. ku tudd Omar Victor Diop benn photographe. Mhm. moo def ay portraits justement waa gars yi di liggéey ci street food bi. lamb na expo en tout cas ñëpp dañ ci yëg seen bopp dama gis ci Youssou Ndour euh, mu woote euh, mu woo presse bi nga xam ne ñooy bind woo leen ci écoute album bi euh, presse bi ñëw bind ba pare am benn waay ju toog ca ginnaaw daal di daal di wax ci kaw ni ko Youssou sama papa mosoon na maa wax nii yéen a daan bokk di toog ca tàng tànganaa bi ngeen doon nekk pour Ndour daal koy fël ci biir nit ñi daal di koy xëcc ne ko yow yaay kan yow yaay kan kooku ne ko man kii mooy sama papa ak yooyu buuba ne ko ah bu wax jëm kaw mu fekk ma dégg ko. Ah. ma ne ko buuba bàyyi loolu bàyyi loolu ñëw. <laughs> <laughs> bàyyi loolu ñëw donc am na solo ñëpp mës nañoo lekk lekk mbedd. et que lekk la yoo xam ni boo dëkkee ci banlieue bi ci ngay xam luy tàng na ci ngay xam euh, lan mooy frox caaya ci ngay xam yooyu am solo gi mu am solo. parce que du laaj yenn moyens yu bari. te da lekk lu ko ngi bàyyi xel ci li xamante ni mooy hygiène. loolu xam ne dëgg la xam nga yaa ngi ci hygiène bi mais yow buñ la jaayee yàpp ni frox caaya jël neex bi sotti ko ci neex bi neex bi da ngay am ñu bari bari ngay def nii affaire bi xoolal di wadd nii nga après nga koy def nii awa yàq nga lekk yàq nga lekk de imagineel imagineel imagineel man ak yow ñu ànd ci forox caay bi yow nga lekk ba bañ bañ ba ñeex bi euh, euh, kii eh. <laughs> daal na xel de ak ngi jox rendez-vous ci samedi 4 samedi bi samedi bi incha allah 10h à 23h. maa leen di xaar nag en espérant ngeen fa jaar. Mhm. ñëw doxantu. bien li muy def nii Abba en euh, Gambie école yi presque dañ koy faral di def mooy lunch and sale. Euh, lunch and sale euh, comme jaaykat yi dañuy jóge from different places ay plat euh, ñëw xale yi dafay nekk événement bu bu rëy boo xam ne xale yi ku nekk dafay ñëw sa yaay jox la xaalis and stuff like that so foog naa ne lii su fekkee lu bees la Sénégal wala. mooy deuxième édition bi. deuxième édition so dafa dafa neex daal parce man xam naa lu muy wax ni. day bari mais chef. Mm-hmm. chef ci biir waañ lan mooy tax gaa yi di ko jox boobu cër waxoon naa la balaa ngay dem faw ma laaj la ko. xam nga nag balaa ngay nekk chef. y' a différentes étapes xam nga cuisine toujours équipe bi dañuy ne na brigade. comme à l'armée. donc on commence à la plonge après nga am euh, assistant commis commis demi chef de parti chef de parti second chef mais ay étapes la. xam nga am na ñoo xam ne dañuy ñëw jóg rek au bout de 3 4 ans booy nekk chef. te du loolu mën nga euh, mën nga euh, maîtriser lu dem ci ci togg. mais tout ce qui va autour organisationnel bi administratif bi am na ñu ci wax yoo xam ne ñu ci bare il faut nga jàng ko nga xam ko. donc effectivement euh, cuisine dafa laajte organisation ak structure vraiment soo bëggee liggéey bi vraiment na teg ko ci yoon mm-hmm. daf ko laaj mm-hmm. donc moo tax ci service yi doo dégg kenn ñëppay suivre chef bi su annoncé mooy ñëppay yuxu huit chef mm-hmm. yooyu yëpp voilà et puis et puis dañuy faw ne cuisine da ñëw togg rek mu jeex non dangay def ay inventaire da ngay le prix lu ngay assiette bi prix bi ngay jaay da nga koy calculer lu ngay def yëpp ci asset bi ci plat bi muy xorom bi muy poobar bi muy euh, diwlin bi plat yëpp ngay am sa raat ñuy woowee ratio nga calculer plat bi nga xamante ne voilà lan nga ci gagné lan mooy sa marge. Mm-hmm. mais chef lan togg togg togg luñ togg lu togg bi neex neex neex bu ñu yokkee balaa kenn di ñam il faut ñëw chef bi mu ñëw ñam ba pare. ah c'est normal. damaa xam li may wax aw ah, parce que chef bi mooy responsable ah, chef bi mooy responsable ah, sans problème chef bi la ñuy woo wala ñu daxu donc moom mooy responsable suñu responsabilité qui est très très am na solo yow lan nga gënoon a mën a togg yow. am na solo fan yàgg ma fa bu ma laaj ma gën a mën a togg <laughs> foofu li ñuy bañ ñëpp laa doon def ñu euh, nga xam ne dañoo bëgg a ñëw wala ñu bëgg a participer xaw ma naka lay demee ñu non non nit yi dañuy ñëw rek su ñëwee après bi c'est gratuit après dañuy ñëw rek jënd ay ticket li ñuy def rek ni ñuy jënd après ticket li ñuy fay rek mm. ñoom ñëpp bëgg ñëpp nañ la gërëm nañ la jërë ngeen jëf ñëpp rendez-vous kañ samedi 4 ko way eh, bu ngeen ñu ko may rek ñu la ko chef daal di koy accompagner eh, daal di génn moom ay ci ana ki réalisé Abdoulaye Laye Makhtar sutuma <laughs> muy def noonu si journée bi si lay génnee dépense am mhm. euh, si lay jox ay doomam ñu lekk mhm. kooku yaa ngi koy de li nga xamante ne dafa war sa diggante ak nit ñi rek def ko parce que àddina bi dee ñun dañu fal ñu euh, lead mhm. pour ñu nekkal ñu foofu noonu so lii lii baaxul si économique dëkk bi déjà and baaxul euh, personally mais ba ci ki yor taxem sax moom ko nga xam ne ci lay suturlu chaque jour moom bu xëyee day bëgg a daw dépense waaye day xëy obligé toog def ni ay moromam toog ku ci mel ni Ousmane mi may jël si d'habitude moom dafa toog tey ah, waa taxi waaw la yàlla dogal <laughs> waaye métti na daal dañuy gestu askan bi bu baax a baax abaa dafa métti trop. bilaay dafa da ah, ngeen def yéen eh, egsi xaaral xaaral ma xool Raan waaw allo waaw waaw waaw nekk. Raan yaa ngi en direct Raan. Raan yaa yaa ngi en direct yaa ngi en direct àdduna ngi lay déglu de ah nee na mën ngaa teg ci kaw tali bara Dakar ataaya <laughs> léegi léegi yaa fi ni toll nii euh, léegi yaa fi ñu comme ñu la doon xaar nga ñëw te mujj woo ñëw lan la da nga mujjee toog euh, ñu lay xooj wala bu dee yaa may seetaan bàyyi xooj bi da ngay gajab te nañ de. baal ñu bàyyi la kon waaye kon ñu bàyyi la. ñu taal cuuraay bi. ñuy ngi lekk na xaal léegi bay soo ko pare tabarkàlla moom raan fi jonni xam naa léegi ñu xoj ko léegi ñu war a dugg ñu xoj ko dem ci waa Joda ñu xool lan la ñu indi indi nañu meew indi nañu jus euh, indi nañu meew indi nañu jus Aba euh, nee naa leen euh, li nga xamante ni mooy euh, waa Géoda seen ay jus ak meew war nañ koo mun a naan because amul benn colorant ndaxte boo leen xoolee xam ngeen ne jus yu bari ñu ngi koy naan feebar yi ñu ciy jëlee yëpp colorant moo ñu koy jox ba ñoom it is natural 100% natural mhm. seen jus yi seen jus yi nag am nañ mango am nañ raisin am nañ ananas am nañ pomme am nañ li nga xamante ni mooy orange pêche cocktail ak li nga xamante ni man comme dañoo xaw a njaboot tuuti macha allah euh, mooy li nga xamante ni mooy seen euh, jus yi nga xamante you can use it euh, pour seen i ay goûter mm, donc mm. mi ngi nii it's not expensive at all bu pare foo dem mi ngi fa abaa foo dem mi ngi fa cherul at all da nga koy jël daal di ko dugalal sa doom journée bi yëpp mun na ko naan dafay am lot of cawarte mm-hmm. comme ñun ñi nga xamante ne dañuy sàlloo si côté wax bi ak yooyu boo waxee ba ngoon jot nga daal di jël meew bii mm-hmm, ni mm-hmm. daal di ko naan mooy euh, ce qui peut amul amut lactose mhm. euh, ndaxte ñu bari ñu ngi am ay problème mu ay réaction tamit ak yooyu ñoom amuñu lactose euh, seen meew bi am na li nga xamante ni la croissance des bébés li nga xamante ni mooy si pâtisserie pâtisserie pour les bébés. Mhm. ak 100 cent 100 pour cent euh, euh, entier naturel ak demi euh, crémé ak crémé lii yëpp waa Jawda dañu ko indil pour sénégalais yi bëgg waaye tamit pour noppal njaboot di jàppale ñu si surtout à part suñu poos aba dañuy jàppale suñu wérgu yaram so waa Jawda ñu ngi leen di wax thank you so much gars yi mun ngeen dem jënd li nga xamante ne mooy Jawda sant nañ leen nga am professeur bu lay jox ay cours dama gis ni fan yi moom. Oui, Abba, ah euh, je me très bien en français parce que il est temps. xam nga lu tax ah, ah, que je suis la ambassadrice de Gambie en Sénégal donc il euh, faut que je me débrouille et Aïssatou tamit elle m'aide beaucoup. mais dégg nga elle m'aide beaucoup. yoon li ngay euh, il est temps comme yaa ngi jël ay cours anglais. il est temps de xam naa da koo bind rek. boo paree rek boo paree rek ma ñëw ci I'm very happy for you and I'm proud I'm I'm so proud. you you have a you have a nice French. Oh yeah. Yeah, yeah. Oh, you too. And you, you have pronounce, a nice. And and. I pronounce. And pronounce well. yeah, yeah. I'm not accent. Yes, yes, Khadija, est-ce que c'est vrai? waaw damay ragal Aba est-ce que ça va boobu ci Youssou Ndour la ko jëlee. est-ce que ça va moom la boole ci français yi. est-ce que ça va. Uh-huh. est-ce que tu tu es toujours là. waaw loolu Youssou Ndour moom la laajoon euh, ñoom Pape Sila. je t'aime beaucoup. dégg nga loolu loolu Youssou Ndour laajoon ñoom Pape Sila. Euh. Pape Sila ak Soumaré mi Youssou Ndour mosoon na leen ko laaj. Youssou mooy woy ba ci yàgg nekkee booy batterie bi ñu ko defaral euh, daa jeex Youssou wàcc bàyyi fa soirée bi wàcc ci est <laughs> <laughs> bi jeex est loo tax ba tey bu Youssou dee woy ba jaag ni est-ce que ça va fi ñu toog <laughs> dañuy la ñu Youssou rek yow eh, a est-ce que ça bien euh, Aba euh, Mouna Beauté nag indeeti na ay xéwal indeeti na yoo xamante ne surtout ci seddaay bi damay wax ni euh, ay produit am dafa gën ndax nee naa la lii ci savon lii ci ay waaye abaa dafa am lu ma la bëgg a xamal ci mm-hmm. Mona Beauté loo xam ne mooy secret Mona Beauté mm-hmm. karité bii dafa meilleur dafa gën te man xam ngeen ni bambara laa lu ma leen wax si ci wax da ngay diw ba jekk xoolal éclat lampe yi di boo toogee dinu ko wax sax am na ñoo xam dañoo ñeme weranteeg weddi mën na laa weddi walaay mën na yow boo jugee taxaw wax ñu ci karité yow jug taxaw fee nenu karité ku lay weddi <laughs> kan moo yabaatee noonu en tout cas bi sax moom ah. ak seddaay bi nii ak réew mi toll nii. Oh. nii ak nii. ak nii ak nele. mais karité day rafetlu ba pare li gën a baax ci karité mooy day tëj. yow li karité def ci yow yëpp yàlla na ma ump yàlla ma ump. awaa ah karité daal dafa meer loolu mooy secret mun a beauté ak li nga xamante ni mooy huile macadamia nee na loolu moom day refermer li nga xamante ni mooy ay vergeture maanaam boo amee ay vergeture wala nga am ay picc ci sa kanam wala brève lépp lu ngeen jël rek euh, kii di mun a da koy daal di faj waaye lii tamit moom tamit dafa gën ndax awa lii mooy crème visage mhm. lii da koy daal di diw si sa yaram di di ko diw sa kanam di gën a belli chaque jour ba pare dafay baax euh, boo liggéeyee ba pare nga dindi sa make dindi lépp daal di euh, defaraat sa kanam gi raxas hydraté la hydraté lépp li nga xamante ni mooy sa yaram lii laay wax sànq mooy huile macadamia lii nag euh, protéine la am vitamine C ak acide palmitique donc lii baax na si yaram baax na si fépp foo xamante ni lépp luy vergeture wala lépp luy tache bu ngeen ko ci utiliser incha allah daf leen di daal di dimbale waaye lii tamit dafa gën ci ñi nga xamante métis yi ak seddaay biñ toll nii aw gay kii def nii moo nii métis bi boo ko bëggee da woo ki nga xamante ni mooy Mouna mu daal leen di wax secret daal Mouna ku ko bëgg xam da ngay dem fi nga xamante ni mooy Ouest Foire wala HLM Grand Yoff wala Mbour wala Mbacké fépp fu ngeen fa dem rek incha allah dina leen di conseiller surtout bu ngeen amee ay picc mu conseiller leen wala seen kanam daal didim wala ngeen am yenn 30 28 75 donc mën naa boote moom mooy secret gars yi aba ayca moom mën naa boote mooy suñu secret tabarkal la wax naa ni lii yéen ko moom table bi seen table la lii la ñu dippee le showroom euh, de Seetu Sénégal donc ñëw leen euh, lu waaye am di jaay rek ñëwal indi ñu jaayal la loo am di ko wane tamit ñëwal indi ñu waneen la ko ba mu feeñ yaakaar naa ne Bril mosoon naa woy ak OMG apulaay nga préparé ko rek Bril ak OMG daf may neex préparé ñu ko teg ko noonu ak côté waaye li nga xam ne mooy album bi ma yor Youssou Ndour ko way douze titres la te tabarkàlla way na ci ba way ci mool way na ci lu ne way na ko ci lu ne way na ko ci. waaw awa ci loo xam ne bu ma ko mën a yónnee aw laay loolu ay mool ak ay lu ne. ñun eh ñu ngi ci challenge bi nga waxoon. ci gi waaw waaw ñu ngi koy challenge ñu ni dañoo bëgg a. pour am ci album yi. waaw am ci poster yi. yow tamit mën nga koo jënd ci kaw boo laalee li nga xam ne moom mooy euh, sa orange mu ne maa ngi ñëw léegi dafa mel ni am na ku ma dog am ku ne ci ligne bi 88 628 may jël suñu invité yi nga xam ne tabarkàlla maa ngi ciy ñëw léegi salaamaaleykum maaleykum salaam. allo. allo waaw. kilifa gi ñu ngi lay siyaar. ça va. nu ngeen def ah ñu ngi nii rek seen yooyu bi gàtt na di. defoon raan sax. Aba. Hmm? waaw. yow soxla maa ngi nii di la déglu. di la Aba dama soxla pour li la yàlla wërsëgalee dama ci soxla cinquante mille wala cent mille. mu ne. li la yàlla wërsëgalee dama ci soxla cent mille franc wala mille franc. mu ne ñaata la soxla. loolu Anne Émilie ku baax loo soxla gis nga Anne Émilie tamit dafa war a kii mi def xam nga bu bu na a si lii ay problème la yoo xam ne bu ñu la ko exposé da koy mën a lijjanti mu ne 100000 la soxla mais Anne boo koy woo du jël Anne day bàyyi ba ay le 15 xam nga man tee gis nga TFM euh, TFM man yaakaar naa ni euh, billaay TFM moo bari ay goro fi liggéey le 15 lan lay fay fii fii fayuñu lu dul le 15 fii le quinze rek la ñuy fay yéex a fay <laughs> yéex a fay. ayca euh, dañoo am ay invité yoo xam ni tabarkalla léegi ñu ñëw daal ñuy fekk si fii ci biir plateau bi ñu am événement bu rëy bu ma nee ñu am. Mm-hmm. Awa Gaye am na man am naa yow am nga ndax lii xew ma ngay xew ca kaw nag waaye faafa mm-hmm. day sama xarit waaye dafa ànd ak sama maam. di maam joo xam ni maam ju baax la nit koo xam ni euh, maam Soda Bousso moom tamit dafa yegg euh, ñu doon seetaan clip bi nga xam ne mooy Bril ak euh, OMG bu ñu ñëwaatee ci plateau bi yaakaar naa ni yéen laay bàyyi nag ngeen dalal seen i gan nag ki nekk sa wet moom la ñuy wax ajaratu Soda Bousso mm-hmm. suñu yaay suñu maam ah une personne pétrie de talent beaucoup de personnalité donc kooku mooy suñu yaay Soda Bousso waaye aussi sama góor sama xarit Fafa ah gën nañ ko gis torop moom donc dañuy jox euh, honneur à la dame d'abord honneur aux dames. merci beaucoup merci pour l'honneur euh, jërëjëf salaamaaleykum réew mi salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àddina waaye salaamaaleykum ci sama kër lay nuyoo. di am fierté ak contentement ak gëj gis ah jàkkaarloo Awa Gueye sama sët bi nga xam ne moom. Blaise Diagne maamam mooy borom avenue bi. kor mami xale bu baax bu am yëg buy defare man du may waxantu mun na baax nit ku yàlla baaxal yàlla na eggali di nuyu bu baax yàlla nag sama doom faafa di kontaan ci aw gay sénégambien moom mooy sénégambien mooy sénégambien waaw ci suñu lépp vraiment aja am na ah, solo faafa waaw ngi leen nuyu mon frère avant no stress mhm. euh, Samira mhm. Awa Gueye sama doom baay Gueye Maloum géej di nuyu sewa maam aussi ajar sooda bu mu baax mi nga xam ne isaan daf daf no uuf rek yaatal duñu teerte yaan lañ gun di doxal ak ki di ko remercier ki disponibilité am nag parce que nag li tax ñu ñëw fi moom maam la ci mhm. waaye euh, toogul benn yoon mu ngi ànd ak ñun boot ñu uuf ñu di nuyu Sénégal ñu ngi seetaan cat ba cat bàyyuma kenn maa ngi nuyu ñëpp ment bu rëy euh, ñu amaloon ko bis euh, ay euh, corona bi hmm. daal di tënk ñu format ko daal di hmm. jàppaat beneen bis muy le onze bi nga xam ne moom lañu dëgmal organisation bi fan la toll programme bi naka lay demee ak yooyu yëpp dama lay bàyyi yow ak sama maam rek xam naa ni ngeen koy waxtaanee bu ko defee ñun ñu ci bëgg laaj rek daal leen koy laaj to afakaal la ni nga ko waxee loolu demee xew-xew bu mag la boo xam ne ah, Awa Gaye xew-xew bi jaay na boppam ba pare yaakaar naa ne communication da dul doy rek waaye xew-xew bi fi mu toll muy si Saloum bi nga xam ne le 11 lañ koy def ci stade Lamine Gueye bu Kaolack jàppoon nañ ko lendemain ki ah, ndog-ndog ñëw muy pandémie bi nga xam ne euh, lu yàqu moo ko yàq waaw lu ñu moo ko annulé waaw moo pat bi ñëpp doo xam waaw toir fakal la waaye nag ah bëggul géwéli wallaay wallaay wallaay wallaay sekk waaw ah, biñ biñ ko annulé nag bi nga xamee ne gouverneur décrété nañu annulé ko muy geste bu ñu salué tamit parce que nag benn bakkan a gën cent milliards waaw tey bu ñu annulé événement bi parce que li ñu sauvé ay doomu aadama dañ ciy kontaan baax parce que on est des sénégalais avant tout ay sénégalais ay doomu réew mi lañ bi ñu joxee raison yi tax ñu annulé ko dañ cee ànd xaar ba yëf yi dal ñu wàccee waat suñu bés jàpp ko le onze décembre bii nii nekk ci waajtaay nag waaw ah, booy waaj nag di communiquer yaakaar naa ne foo mënti communiquer. da ngeen di pare sax fii ah, fii mooy fii mooy. <laughs> waaw la. fii mooy the city of communication. li ma ciy wax rek mooy euh, kenn euh, du du ma man pour man Sénégal kenn ëppalewu ma si euh, ki ko organise. Ah, mooy Nogay chéri Moro. Oh, madame Moro daf ñaw moo ñu boole. dama mm-hmm. sëy boole ma ak moom. Mm-hmm. waaye daf ma jàpp comme rakam. Mm-hmm. Nogay mun na toog ba ay 4 du matin di wax ak man. you know di ma teg teg si yoon euh, jàpp ma bëgg ma respecte ma ba ma xam ko boole ma si këram si fameem mhm. euh, man du may dem këri nit ñi mhm. ba laajal faafa mhm. nogay mun naa dem këram ba ay deux ou trois heures du matin nekk foofu te doo dégg nogay mu wax lu ñaaw doo dégg nogay mu wax lu bon leneen is very important mooy nogay fu mu toll Euh, gannaaw yàlla ak yonent bi mm-hmm. da koo fayit ba yegg si fii mm-hmm. euh, xaarul kenn ñaanul kenn dawul si gannaaw kenn jigéen bu am jom la mm-hmm. kon su wootee euh, respect mooy jiitu ba tax na ñëpp dañuy daal di ñëw xam naa loolu sax suñu maam moom <laughs> xam naa di ma ci mën a gën a kii mais loolu il faut que ma waxal ko nogay ndaxte wax dëgg neex yàlla fu ma toog yére bu yére bu ma sol gis nga nogay lii bu ubbee armoire mi ngi foofu nogay lu mu sol barki alxuraan daf ma koy ñawal ma mu yónnee ma ko so it's something loo xamante ni man dama ko appreciate a lot and I love you waaye nag doy doy waar nag doy na waar man <laughs> du nit ku ma miin ah du nit ku ma miin ah. waaye ku yëkkati waal yi ah. eh, fii ci Ndakaaru yóbbu ko ba kaw Kaolack mm-hmm. doo nit ku ndaw doo nit ku ñàkk jom mm-hmm. rawatina plateau am ah. ñu ne ku ciy toog nga ne sama maam ji nga xam ne eh, ko <laughs> yëkkati <laughs> xam nga eh, Aba mm-hmm. nga koo xamul noo koy def nam la def rek a tax barki démb Ndiaye dafa am lu yaay xale na bakkan di léppam dafa génn àdduna ak jotu jaama gay koy jaale ñëpp. boo xoolee sa sa xam ne yeewagul dafa doon nelaw waaye xale bi woote ci xale bi woowaali xale bu baax ñun dara frégeew nu dul xale bu am yar gis nañ lu ne def nañ fu ne c'est le respect compte xale boo xam ne dama jële la sax li muy ñaw waaye na mu fonk ay waajuram fonk jëkkëram fonk askanam def com wane une femme battante jël Bercy tudd ko ñu ne sa waaja góor mbul Aly Ndiaye Bercy ku ko fi def rek ci moom nga ko jëlee mu jël Bercy yóbbu ko Saalum woo ndaanaan li woo sama sët bi kama jàppoon ci loxoom na ko demal kama ko waxoon yaa tey boobu coow lu bariw eh, waaye mi ngi koy dëggal bàyyi faal ba ki doon lu ñaari waale yi laata ma doon wax dara ndax télévision bugguma ci woon toog tant que deful ma papa coon hommage fekku ma fi ndax dafa ma fekkoon ci ay yëf te defe naa Sénégal yëpp kontaan nañu ndax kanam na moom donc ma waroon ñëw waroon jiital loolo dina jaale sa baay bi di ko jaale Sénégal di ko baale sama doom ji naa dinaa fi ñëw tey dama ñëw pour berse pour yaatal waaye defe naa li nogoy tërmal ah abaa defe naa tubaarkàlla xuy xuy kamat ga diggante le huit la dara tàkk de lumière yi wax naa ko sama doom ji dafa tërmal dem nga berse gis nga la xawoon son et la woote les jeunes de demi te sama sët ba dafa jongoma day sol tubay bu ko jot nepp mu baraayee ci lay defee li ko sam ma ne ko jayaxul léegi tayatul day jayaxu bal pen maa nga mi ci bëleel moo di dene ba pare na moom fu muy dem maamam ne ci gannaawam day songale waaw mu jël nag loolu jar naa wax mu def ci lu baax ndax bi yàlla dërëmalee bés bi ñu taxawal ko man neew ma fi mm-hmm. donc na koy jàpp ak sentiment yaay foo ne sa maama ngi soog a ñëw maam nga soog a ñëw bokk ngeen ci ñi ko gis ñi ko gis ñëwal maam ñëwal tubaarkalla ma ñëw waaye bi ma ñëwee tubaarkalla jikkoom dama indi ak yaram mm-hmm. ak tegginam ak emplacement bi ma teg mm-hmm. mm-hmm. kon bu ñëwee jël mal waali waali jël bés bi mu def ko le premier paxe waali def ci lu baax bi mu demee du ko yóbbu la ko war a jox dafa yëkkati juróomi million buggul sañu cité ko mais c'est normal le bien se soigne par le bien ku la defal lu baax wax ko mu jël ko na ko avant tout defaguma dara juróomi millions yi yaay sama jigéen da nga gëm yàlla maa la dimbali cinq millions yi waaye li ci des mooy bàyyi mag lépp lu jëm ci son lumière yi ma war a indi sama staff dinaa ko gérer ak lu ma mën a jàppee ci bés bi mu jàpp waaye soo waa gën a bañ maam maam muy jaaw ak madame Diaw mi nga xam ne tubaarkalla moom it tukkal na ne tubaarkalla mooy marraine d'honneur bi waaye sa xarit bi borom ñaari waal yi mooy tubaarkalla paxente doon def ci teraanga boobu boole kooku yu bari ñoom ñaar ñu séq ko muy teraanga bi nit di séq ak nawlem ci ngor te mm. kenn du ko wax du waxi télé mooy dañ koy brief <laughs> dañu ci léegi dañu ciy ñëwaat léegi daal di yeggali ndax euh, événement bu rëy événement bu mag boo xam ni kuy Saloum Saloum yaa ngi koy waaj doomi ndàngaan yi mm. ah, ñëpp ngi fàkk di ñëw man gis naa ñu jógee ca bitim réew di ñëw di waajal bis boobu nga xam ni moom mooy le 11 am na première partie bu doy waar bu ci war a xew li nga xam ni mooy new nekk nag ci conducteur bi Euh, li nga xam ni jour J moom mooy am ci biir stade bi li nga xam ne noonu la ñu koy waaje bu ñu xëyee ba bu ñuy gont ci stade ban a lay commencé ak yooyu yëpp dañuy ñëw léegi ñu waxtaan ko ci waaye euh, suñu programme xam nga sama maam ak faafa dañu suñu programme am nga ñoom seen programme nga choisiroon ci suñu programme boobu maa xew xale boo xamante bi ñu ko découvrir yàggul muy tudd H de suñu programme bi ah, waaw dëgg la de mën nañ suñu programme H de best weetoon découvrir ci li nga xamante ni mooy série Karma mu nekk benn moment de love boo xamante ne euh, dañ ciy way ku nekk sentiment bi nga am man damaa bëgg wayu love parce que lépp mi ngi tourné autour de amour donc Fafa sama frère la dama am amour ci moom donc mi ngi noonu may naa ko sénégalais yëpp en tout cas mais suñu maam fi mu nekkoon dafa am solo mais man dama koy woowee maam jeune fille ndax nga loolu waaw d'accord je suis d'accord xam nga lu gis dafa am lu muy tëddee mm-hmm. fii sama kër mm-hmm. te tubaar góoramul Aliou Ndiaye sama doom bi dul ma bañal dara biraan directeur bi mu jóob ramat sa borom tawa faal sama sët bi nga xam ne tukki bi ma tukki mooy jël place ya waaw fii sama kër la te yëpp incha allah di seet ñu ngi ko mën a rageler dara du métti nan oyo fël nan oyo fël yëpp ñu eggali ca la loolee ñu daal di tërmal rek. waaw waaw kamar yi de. Uh-huh. waaw dalal naa seen xel. Uh-huh. waaw mën nañu engagé. Uh-huh. ak réparatrice la moom day réparé. <laughs> moom yàlla yàlla defal ko jàmm. donc foofu dañuy dem ci programme bi gis naa euh, ay ndaanaan yu mag a mag a mag ndaanaan yu bari yoo xam ne bokk nañ ci programme bi. war jàpp ci première partie bi. ah Kaolack képp koo xam ne rek ndaanaan nga fa rek incha allah di nga joué premier partie balaa waaye di ñëw mhm. ñëpp xam nañ ne ñun suñ culture cosaan ki mhm. ngoyaan la suñ cosaan ngoyaan la dina Zahra Mbaye dina ñëw incha allah def premier partie ngoyaan bu saf sàpp balaa waaye di ñëw Alim Buub Xaadim Akasa mhm. Galas Chifa képp koo xam ne Kaolack nga am na ay xaar waaye yi nga xam ne sax dinañ ñëw ku ci mel ni Sori Ba ku ci mel ni Njole Taal Daba Sey ñoo ñëpp li parce que Bercy lañu woote abaa lu tax ngi ne Bercy nag tuddee wuñ Bercy par hasard ni wala wala dagewee ni dañuy def Bercy maanaam lii xew Dakar ñuy indi chapiteau yi andi xel comme base débloqué millions yu bëri jox leen ñuy samp fii def ko tarkalla ba mu mel ni aljana noonu la ñuy defaat Kaolack. waaw moom ku bëgg sa dëkk dëkk dëgg la parce que mënoon nañoo oo oo Kaolack waaye dabu dabal tegal leen barrière teg seen conseil déedéet chapiteau lañ def def ay table décoré table yi mbedd mi def tapis rouge teg seen son et lumière décoré Kaolack cat ba cat nit ñi ñëw baa si xam ne Bercy la ñuy ñëw mm. parce que ki koy tëgg doyee na ko muy Maria Sine ka ko organisé mënee na ko muy Nogay Jaw ala ci jooma jaw xool fara jooma jaw xool yëf yi noonu la demee abaak du yëfi daba dabal du yëfi kolo kolo ñu jël nag comme ñu ko sama maam waxee léegi yaa ngi léegi bis bi jagleel ko Waly ko Seck mooy parrain d'honneur bi loolu ñu doon am Sénégal waaw mooy woy bis bi moom lañ defaat parrain d'honneur mm-hmm. kooku laata bëgg mu rakkaa ñu daanu rak mm-hmm. dama koy bàkk loo koy wax kooku li mu doon dafa bari limal ma coon bàyyam lan jëgaa jël barki démb ak taar ba hmm? dama ne coon bàyyam lan jëgaa jël barki démb ak taar ba waaye bàyyam fexe na ba bàyyil ma fi souvenir bu ndul fay waaye xamoon na bu màggee hmm? lu mu lu mu lu mu fi bàyyi da koy téye hmm. dafa bëri jom kooku mën nga koy wax ki dama jiitu ci moom bi muy am jom di tabe di def générosité boobu amul xaalis ñun àndoon na bu ñuy ànd ak moom boobu tubaarkàlla métti na. Mm-hmm. Mm-hmm. soo dugg soo. Mm-hmm. xam nga wàllu fu mu saan dem maa koy présenté mu génn. lool du tey. kon sama sët boobu dama bu ma demee boo jëmbatee dara ba jabar ka sax da ngay bàyyi nag. tóotóor ya mu tóotóore. waaye seen i ñeme jërën juuf moom fu mu nee xolam mën na ko bunge. xam nga booy wax ay waxam ak yooyu de man dugg ma ci dara. li ma dugg mooy ci xolam dafa rafet. nit bu baax la. def na lu baax la galanterie. je parle comme il est parrain. amul deret ak yooyu yëpp ku baax rek ñu ko. moo tax Waly Penda Manga yàlla na eggali. Mm-hmm. Nogoy mi ngi koy remercier. Mm-hmm. mooy ñu ko dugg tubaar kàlla te dina def dara. Mm-hmm. maa ngi mu ci Joof ba giwal Ndakaaru naar yaay joor ba giwal Ndakaaru. monsieur Saba Diagne ba giwal Ndakaaru. maa ngi bàyyi Manga ak jaxeer béyti rek bàyyi ji bu bu yore sumbu jun laata muy dem sumbu jun fàkk yi day yëngatu. waaw loolu quoi waaw te dafa def ñaari yoon. non non non dafa def ñaari yoon. bi ñu ko tuddee bis bi dem seeti ko dañ ne ko bis bi ñu la ko tuddee mu ne lii de mosuma. loolu la doon joxe juróom. ñuy jëlee xel combat. loolu la doonu ñu def chapiteau li ngay def grand théâtre mu joxe waat ñeent. waaw moo ko def neuf a góom. ci defe naa loolu am na solo. ak tubarkalla yoo xam ne invité yi. waaw xam nga loolu yëpp tubarkalla Aba. Mm. defe naa li gën a li am solo mooy. Mm. Euh, j'espère avant Bercy. Mm. dinañ am plateau bu gën a yaatu. ñu def conclusion def tubarkalla lépp. développement waaw développement. ouvrir les guillemets fermer les guillemets waaw tubarkalla di di ko ñaanal nag mu eggal ak jàmm parce que euh, Abba euh, euh, xale bu baax organisé la. Mhm. nu koy dafa baax. xale bu baax la dina yëkkati ñëpp. gis naa la nga lim daanaan yëpp. ñëpp koy wuy si kaw lax ndax li mu def. c'est émouvant nag mhm. xale bu am teraanga am investir mhm. ndakaaru ni mu yaatoo cosaan jii mi ngi fi bu ko laajte woon Youssou jox ko ko mu tëgg mu ne déedéet fi ma am juddoo fa màgg fa fa lay dem mhm. biggal sama waayu mbokk biggal sama askan ngoyaan ngi ñu dekkal ko birsi nga dërëmal ngoyaan ambiance fa la mën a dañuy ñëw ci li nga xam ni moom mooy organisation bi donc billet yi euh, fu mu toll ak billet yi ñaata jar ah Samira dama yaakaar ni dama dox ci sa lank ah. ah, yaa maa ngi ak euh, nag événement la lan lañ mën a ah, xaar su ma sañoon yëpp ngeen fu ne bokk nañ lu ne bii laa bëgg a àndal la sa karité gii ni mu la def waaw ah, doo ma laaj ko lii la naa voté rek. ah laaj ma sa yëpp. waxal ci ah. billet yi fan la jaayee bii ak ñaata jar. bii am na billet yu 5000 am na billet yu 10 000 dañuy imposer VIP bi Kaolack parce que. Kaolack daa bëri VIP tey waale buy tëgg fii Dakar daanaka Saalum Saalum yëpp koy feesal ah, ñooy jënd taabal yi ñooy jënd billet yu cher yi te Kaolack lañ dëkk dañ leen di delloo seen yëpp fañ moom billet yi 5000 la ak 10 000 francs am na ay taabal ñoo xam ne ku woote ci numéro yi ñu réserver la taabal ku woote ci 945 43 45 incha allah di nga xam taabal li muy jar ak disposition yëpp di nga am information yi mais bio yi ak 10 000 cher la. mais c'est disponible pour tout le monde. ay wax ko li xew. seen ay bus. Ah, euh, ñoom tamit ñu ngi waaj bien sûr ba pare awa Adama Adama Baro. le président de la République gambienne. Ah, euh, kii la bokk. ci pare la bokk. noo koy def ko pare ne. Mm-hmm. ba pare boo ne Kaolack da ngay toftal Gambie. da ngay ñaaj rek. Mm-hmm. ndax loolu soriwul. <laughs> Ah, te Sénégal Gambie ñoo bokk lépp di nuyu Gambie yi bu baax. ak suyem bay suidèr ñoo ngi doonoo baax askan woowu sénégalais yi mënunoo fay les gambien man sama lépp gambi la te ma fa laa dëkk en 2000 man laa fa commencé dem lu fay play programme man la noo woo maa dee play ak ñëpp sama mag ji anti yem may ka ma woyoon ngooyaan mu def descente defe naa abaa Oh, li ñu nar a toftal sama sët bi kor man yow sama doom jooju xamaguñu fu mu bokk bu ñëwee bu ma ñëwee ñu xam ne yëpp dëgg la galab bi ma came daay la goro ñu tëgg leen ndax ngeen mel ni man asa boubacar on ferme les guillemets defe naa te ñu bari sa di ñëw xam ne lu bees jaa ngeen sa maam kooku à la lu may ñëw Dakar la door paa ñu décortiquer waaw defe naa aba bés bi loolu rek moo ko toftal bari na ci ay surprise yu bari yoo xam ne nag yu bari camara xaj fi ndax euh, on a un imprévu pour ñëw tubaarkala ci bés bi te man xam naa yëf yi lu am solo loo xam ne c'est important ci wàllu cadre bés bi mooy ñor na ñëpp Bercy Saloum c'est c'est c'est c'est quelque chose boo ne vraiment c'est une fête quoi oui oui c'est une fête boo xam ne c'est pour les Nanganoises les les les Dakaroises y a tout le monde diggante coofak fu waay dëkk ci gox woowee Gambien tu ñu ñëw nag le centre du peuple ñëw di ko tëgg muy Wally dafa naa kooku ndam rek lañ ciy gis ñu ñaanal nag ki ko dërëmal xale bi di ñaanal borom këram Cheikh Moro. musuma mel ni musuma gis ku mel noonu. abaa su ma ñëwee. sama goro ba gâteau lay njëkk indi. ak crème glace la ma moom i defal barki démba sama doom ji utal naa ko taas su indi na ma gâteau. ak crème glace. dama tukki ba ñëw ñu ne ma moom i moo la indil cuisinier bi sa jigéen. te sekk moom lu ma defal ci man rek dafay rëy ci man ndax maa ko moom. waaye du loo moom rek ñu jox la ko. et merci pour madame Tani. di kontaan ci ñëpp di woo ñëpp nag. diggante Saloum. doo fa dugg te doo nuyu Fatou Samb Cissé mm-hmm. imam ña waa Saloum ñu jàppale seen doom xam ne ne investissement dafa métti rawatina nag ñu reporté ko programme reporté à Fafa mooy double dépense mm-hmm. waaye ndok bi ki mu seqal mu indi sentiment wala def ci lu baax mm-hmm. jëlul sa fayo da ko ko may mu dem dabal sa dam dabal faafa nga jàpp sa xel rek ñu dem ak maam balaa ñun ñuy sant suñuy sponsor yi nga xam ne ñu wéttee daal tëj émission bi ci boote juste ñii la dafa am ñoo xam ne mënoo toog ci plateau te doon tudd sax waaw ku ci mel ni euh, madame euh, Amélie Diawo mm-hmm. muy jabaru Mbamboy Diawo mm-hmm. yaayu Zeyna Diéna ak Badou mm-hmm. kooku toi fakkaat la mënuñoo dugg si ba génn te tudduñ ko parce que ndey la ci bis bi maanaam boo dégg naa ma mooy ndey la ci bis bi dañ koo ndey bis bi mu jël bis bi tamit engagé ko ak bëgg bëgg mbëgg Latir Diaw bëgg mbëgg Nogay Diaw moo tax bis bi demeewul ci demi mesure da kiy demee lam man day message sax di ñaan day woot téléphone di ñaan kon toir fakala moom dañ ko muy nit ku baax ku gore Nogay koo xam ne ku ko jàppale c'est normal parce que jigéen ju góor la man ak moom ñëw dëkk Kaolack ànd ñëw Dakar bi muy ñëw Dakar Ndege Njaay la jël ci Versailles bi la toog kuy yéeg ne ko may ma jàll kuy wàcc ne ko may ma jàll Versailles rek lem waaye ay 4-4 dafa dugalaat biir si Saalum dafa defaat kon jom jaa bëri ku koy jàppale c'est normal Pape Demba bi tey tamit directeur u SAER rek mënuñ koo bañ a tudd muy le choix du président waaw waaw Pape Demba bi tey moom dañ ko tuddee bis bi tamit muy parrain ci bis bi di nit ku baax ku ubbeeku ku oyof koo xam ne dafa taalal kaw la waaye yëpp loxo moom tamit euh, pare na ci bés bi ñu ngi rek laay tudd bañ a jël taaw bëri bañ a monopoliser wax ji ndax nag xam nga plateau TFM di wax naa nit jattawut abaa defaral say nit ku leen ñee ñëw ku leen xool bëgg a ñëw fii nii doapakaala li defal la jàmm yàlla yàlla defal la jàmm maam euh, lan mooy sa mot de la fin ci plateau bi fii waaye jërëjëf abaa xam nga nag TFM du ma du ma fi ñëw ba dem te du ma nuyu sama rakk ji nga xam mooy di fexe na ba ko tudd tudd ko muy Baye Cheikh sapro mbar ko far Ross Béthio formata mm. yëri jéey malaa ma yëri jéey mboose yëri jéey ah, yàgg nañu feggoo ni sama rakk jooju nga xam ne ak sooda dafa yàgg du tey mm. Mm. may magam di léppam di kilifaam di kontaan ci moom di ko ñaanal bàyyi dadi di bëgg bu baax a baax defe naa bébé kontaan naa euh, Camara mm-hmm. yëf yi xat na waaye ci xaja xajal rek ndax koo xamul noo koy def nam la def rek a tax mm-hmm. donc daal sama sotti daal tey no koy la j'ai macha allah dinaa ñëw ñu toog. beaucoup de choses. les sénégalais aujourd'hui je suis. maam xam naa ne xam naa ne tey kontaan nañu. ndax ci lii rek lañu bëgg di ma gis. waaye sant naa Aba. ndax waaw ndax waaw moom sama rakk danañu toog. bàyyi mën a cuq. bàyyi mën a cuq waaye mën nga ma joxotaal. <laughs> mooy sama te defe naa tubaarkàlla dinaa ñëw. ñu su euh, Dakar na door pas ñu def affaire ba mu baax. yéen ñëpp sama njaboot ngeen. di kontaan ci waa kër gi di kontaan ci ñëpp. di bëgg euh, ndax xam naa di remercier sénégalais yi. Mhm. di leen wax jërëjëf. Mhm. damay def conclusion rek merci. Mhm. gis naa lépp. jërëjëf du ma dugg ci benn détail. kontaan naa ndax ci lii la lañ ma bëgg gis. di gërëm suma mag yi fa ma ne woon ci Europe ñoom ñëpp tubaarkala def nañ leen war a def. di kontaan ci ñëpp nogoy na sooy dërëmal lu mel ni Bercy foog nga nuyu le président de tous les sénégalais. di dërëmal di nuyu président Macky. ma waaj maa yànde waa gaan bàyyiwuma barki démb bi ma sama yaram sutante. ma musóor lañ ko ca gis ak ñetti faar yu bokkul sama dugg dugg waa gànn xànj yàlla yàlla guddal fanam defe naa abaa ku bëgg am loo gis bëgg a gis kermesse daraal cathédrale bëgg a gis kermesse boo ne kermesse dañuy defaree kermesse dafa am cathédrale it dafa am ambiance cathédrale dafa am ku bëgg a gis mbëpp mbëfër riime jolli pello këf dem <laughs> ñëwal la oos Aba euh, euh, la onze euh, is the place to be mooy fële ne la ca Kaolack di stade Lamine Nogay borom Leyla's Events moo fa woote ànd ak ki nga xamante ne man dama ne mooy the future of Pan Africa kooku mooy Wally Ballago Seck kon boog incha allahu on the 11th fële ca man I'll ak waa Gambie yëpp xam naa ne ba la ñëwee di ma fa fekk Aba kon mu ngi noonu rek di leen jox dig daje rek incha allahu ba mercredi Eh, di waxaat rek eh, on the fourth mooy samdi elections fale na la sa Gambia di ñaanaat rek di ñaanaat di ñaanaat nañu def lépp ci jàmm ak salaam parce que président yi dañuy dem waaye ñun dañuy des eh, macha allah ñu def lépp ci jàmm mu rafet may nag sama beneen chérie bi di madame jaata di eh, borom suñu taax bi nga xamante ne moom a coiffé waaye nag eh, Aba la tax eh, ngay kii xam naa mun naa doxantu ne la Samira buy tàggatoo ñu woneel ma sama sañse bi nga xamante ni Nogay madame Moro moom a xam ne rek moom a daal di defal lii rek nee naa leen lu mu ñaw benn ñawal na ma ci beneen mu ngi di ko wax rek ah, thank you so ma maa soxna yow tamit dama lay ñaanal gudd fan ak wér ndaxte nit ku baax nga <laughs> nit bu baax nga di la ñaanal bu baax a baax Fafa yow tamit di la Aba. Mm-hmm. yow tamit Aba man li ma gën a neex si maam Soda Bousso mooy c'était un plaisir ma jàkkaarloog moom parce que daf ma yàgg daaneel danaan parfois quand deux verbes se suivent la. duñ koy doyee immédiatement l'infinitif. yal na la yàlla may gudd fan ah, ak wér gu yaram bu baax a baax ba nga yàgg fii waaye sama doomu nday Fafa ah, maa ngi lay euh, ñaanal plein de succès ci seen événement bi ngeen di dëgmal mooy euh, le 11 fële ca Bercy Saloum donc di ci woo Sénégalais yëpp fépp mën a nekk rek mën ngaa dem doxantu te xam ni Paramareen moo koy dëgg donc ñun ñëpp c'est Sénégal qui gagne comme ni ko suñu maam waxee waaye Aba di remercier ñëpp duñu bàyyi waa Mouna Beauté nga xam ne ñoom duñu jóg ci suñu sponsor la moom Mouna Beauté mi nga Ouest Foire wala Mbacké wala Mbour wala HLM Grand Médine fépp dem rek incha allah di ko mën a jot donc ma joxaat ma bamtuwaat numéro téléphone bi bi nga nuyoo. man damaa taasee dama la pare bu ko déglu nga jàll ci damal ñu xool la. Abdou kaay ñu xool li nga sañ. kaay ñu xool li nga sañ. damaa tàggoo ba pare wala. tàggoo ko ah sant nañ la nga sant gërëm ñëpp sant tàggoowal coono jeex na ñu ngi tuub bu baax ñu may tàggoo mooy ñu ngi jox ñëpp rendez-vous la 11 di leen wax ne leen na ñëpp ñëw bàyyi na fa am sécurité bu doy xel yi na dal na ñëpp ñëw baal enjoy sonn rafet ka xool ñu waay waay maam waay waay ka ñu xool ñu waay waay maam waay waaw rek nga am droit jël ba pare soo ko jël keneen. ay maam waay ak élégant moo am élégant. xam nga tam di gërëm di gërëm euh, bébé. di gërëm benn jaata. Mm-hmm. Euh, oh, tàggee boo gis am na jàppoon. Mm-hmm. man moo jàppoon sama loxo indil ma Nogoy. Mm-hmm. Nogoy bëggoon ma xamul fi muy jëwoo ko. indi ko sama kër. mu ñëw ñoom ñëpp muy sama njaboot. te loolu rëy na. waaye benn jaata ñu ngi koy nuyu bu baax. di kontaan tey bu ma taxawee fii moom laa fi taxawal. benn jaata Seck waaw waaw benn jaata ñu ngi koy kontaanee bu baax. baax xale bu baax waaw waaw waaw tey ma fàttali lu bari. walaay seen bee da dama fa daan prier. afu Abdoulaye xaaral sama wax li mu wax ba pare. Abdoulaye sama yi nuyu naa leen. les techniciens yi Diouf ah. ñoom ñëpp waa fii dama Youssou Fee la daan wooyee ñu tëgg Médine. boobu dama doon sërxën ak génn. boobu sama am tànk bi oyof na toy toy toy. Abdoulaye amu thank you